weeru koor yow suma mbokk mi comme dégg baat bii rek waroon na laa doy ci guddi gu njëkk ne aljana day dem génne yére yu bees comme ni nga xam ne bu korte bi ñëwee ku am dara da ngay dem xotti yére bu bees ñawlu ko dàll yi sax bés boobu dangay ngay bugg ne mu nekk bees aljana yi noonu lay def te aljana de xam naa bu demee bay taaru dana rafet xëy ku la ko mënoon a woon ba nga yundu ko ba seen taar ba ba xet ga jolle dootu xanaa xamoo ne am na mag ñoo xam ne dund nañ ba dem bi feen dund fii ci euh, àdduna dañuy toog aljana di leen xëñ moom ngay gis dootuñ seen bët sax dootuñ ko xippi xool seen gémmiñ sax dañuy dem ba di ko muur dootoo ko gis dootu soxla dara ñu ne am na benn mag suñ dëkk dafa toog ba mag alxuraan rek la dëkkoon mokkal ko bu guddee bu tëddee pit ay pittax rek laay gis yu weex tal mu sonn na bugg naa dem waaye man da dem booba bàyyee ñu dem wax ko Mawlaay Cheikh Ibrahim su ma njijaay lañ yebaloon su ma njijaay moom lañ yebaloon mu dem ba mu demee mu wax ko Baye Baye yebal ko ci Sëñ bim ko waxee Baye Baye na ko ah ma dembaloo moom foofu la toll léegi àgg a foofu léegi ah demal ci Sëñ Aliou wax ko ko ko ko waxee bi mu yeggee ci sa la génn àdduna mag ñi dañu ne fii àjjana leen xañ <laughs> fekk deeguñ waaye nag ñun moom nañ fi neegum <laughs> te yàlla musal ñu jaayu àdduna bi te ñuy dund di xeñtu cuuraayu àdduna bi comme àgguñ am àgguñ de ca dégare boobu yow suma mbokk mi bul naaguj ci ndimbali yàlla yow suma mbokk mi sa relation weeru koor lum sori sori boo góorgóorloo rek dana jege yoo suma mbokk mi secret bi nga xam ne dafa am efficace dëgg mooy ne ci weeru koor wii ci la bind ci la yàlla bindoon aadama tibbee ko ci suuf ci ci weeru koor ci bésu ajuma ci lañ bind aadama roxom gi ñu ngi ko jële ci malakotu sama mulk mooy li nga mën a gis malakoon mooy li nga mën a gis ñu boole ñaar yooyu nag xam nga soree nañ bii ji suuf lañ ko tibbee bind ko muy ba jëmm ji bee ñu jëlee ko ci malakootu sama wat wal ard boo demee suuratu Yaasin moom la jeexee fa subhaana lazi bi yadihi malakootu kulli shay'in wa ilayhi turja'un moo tax mag ñi daan dañ daan ñu ngi amoon salaatu ala nabi boo xam ne soo koy jàng loo bugg yàlla tàggatal la ko allahumma salli ala sayyidina muhammad salaatan tusaxiruna bi kulli shay'in yaa man bi yadi malakutu kulli shay'in <laughs> boo koy julee salaatu boobu téeméer rek nga bugg dem place da ngay yéen a ngi ci yoon bu bees yu mel noonu da ngeen koy am di ko gànnaayoo kenn moomu ko kenn moomu ko pour ko bugg la baax <clears throat> mu ne ñu bind aadama ci suuf room ñu jëlee ko ci kaw kon laaj na séparation mooy indi weeru koor bu ñëwee rek mu séparé ñaari ñooñu roo yeeg dellu fa mu newoon di béyal kontaan lu bugg sax weeru koor jeex su liñ bindewoon ci suuf si tayal bala jantaay muy yogori yogori dara tayal de parce que bokku ci moom bànneex rek la xam lekk biir bi fees poy mi tooy nangam nag nga baal ma ngeen baal <laughs> ah damay jàngale nag <laughs> loolu rek la doomu aadama bi xam moo tax weeru indi na juróom yoo xam ne moom lay bëggale ki ci koor gi gannaaw bi ma waxee guddi gu njëkk maa ngi dugg nag léegi kii yàllaa waxal boppam nag mooy bégte bi gën a mag nga xam ne dafa làmboo juróomi affaire yàlla maye ko rawal Buxaari Buxaari moo ko solo hadis bi demoon na nangami junne ñi koy segg di ko segg ba mu des juróom benn junne te bii nag cee ya nga xam ne moo fi des ca la bokk mu ne ana nabi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi dafa wax ne kullu amali ibnu aadama la illa siyaam fa innahu lii wa ana ajisi bi wa siyaamu junna fa ida kaana yowmi sawmi ahadikum fala yarfas wala yasxab fa in saabahu ahad aw qaatalahu falyaqul inni saayim inni saayim wallazi nafsu muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi yadihi la qaluufu fomi saayim adyabu inda allah min rihil misk lissaim farhataani yafrahuma ida aftar fariha bi fatrihi wa ida laqiya rabbuhu fariha bi sawmihi kon nag yonent bi mu ne juróomi kado la yàlla joxe la yón la yàlla joxe ci weeru koor moo koy joxeel boppam juróomi kado xam naa foofu laay tëjee kado mu njëkk ba euh, yàlla dafay wax ne lépp lu doom aadama liggéey rek moo ko moom ba mu des koor man koor moom maa ko moom maa koy fayal sama bopp loolu rek jar na koor bu ñaareel ba koor masque la lu tul la ku la jam paaka du dugg ci waxit paakaab saytaane paakaab mooy yàlla paakaab yi lu yóbbu ni sawara walla jaasi ja wala fetal ja du dugg junna la paak boobu ñuy masqué moo tax mu ne bu kenn ci yéen wooree bu mu waxati waxi kàccoor lu jëm ci jigéen ak lu mu dund bu dul kiñ la may ci farata la sunna si Muhammad te kookil wax ja bu mu yegg ci loo xam ne mën naa dem ba indil leen ngeen dugg ci ay bànneex moo tax na ko woor bu mu wax waxi caaxaan bu mu wax waxi saaga saaga nag la gën a bañ bu ko kenn saagaa sax walla mu ñëw dóor ko na tourné bu fekkee ci ndeyjoor la ko dóor na ko jox bu càmmooy na ko man du ma faywante yow inni saayim man dama woor mu ne wan lay si su muhammad bi yeddi maa ngi géñ ne ki nga xam ne suma bakkan bi man muhammad ci loxoom la ne xetu gémmiñi ki xoor moo gën a neex fa yàlla eh, xetu parfum bi ñuy wax misk ku xoor ba pare danga am ñaari mbégte yoo xam ne da koy bëgg bu waree xiif bu daggee day kontaan bés bu demee ci boromam it day kontaan kon àddiya bu njëkk ba mooy lan jëf yëpp doomu aadama bi jof moo ko moom ba mu benn ngoog koor moom yàllaa ko moom benn kado ba ñaareelu kado bi mooy ne yàllaa koy fay eh, defe naa loolu ñetteelu cadeau mooy koor tërs la masque la ku la jam du dugg seytaane ñi la waroon a yàqal jéng nañ leen kon masque la boo xam ne dara doog ci yow mooy ñetteel ba eh, kon te kat eh, junna boobu li ko tax a jóg <clears throat> te ngeen ko leeral <clears throat> seytaane yonent bi dafa jàngale seytaane façon boo xam ne ba léegi scientifique yi sax xam naa ne buñ ci duggoon dañ ci génnee yeneen i affaire parce que li tax saw mu junna mu wax ne al koor euh, masque la xem fa waaye bu mottali woon dafay wax ne masque la ci sawara <coughs> lépp luy tax nga dugg sawara rek defal na la ci eh, protection ba du ak ci yow kooku Buxaari moo ko solo loolu li ko waral yonent bi daf ñu misaalal mu ne seytaan yajri fii uruq ibnu aadama majra dam seytaane bu buggee caacaay dëgg ci ku bugg a yàqal day seet deretam ji fi muy jaar sëddit yi muy jaar yàlla may na ko loolu mu dugg fa lay dugg lu ko neex loolu mu def ko boobu kenn ku ko mas a jàngale ci scientifique an ban docteur benn médecin mu mas a wax loolu koor nag seytaane boobu waxuma bi ci biti waaye bi dugg ci biir sëddit yi di lux-lux yi di la def loolu ne reyal kii waaye daf lay xatal jëlal alalam ndaw si di jaay affaire def ko li nga koy def ba pare nga yàq deram dootu jar dara kii alal ji mu dajale fii sàcc ko waay demet yi nga xam ne nit ñëpp a ngi naan dafa baax xas ko ba nit ñu gom ko te boo ko nit ñu gëm ko nga ñu dekk ne waa ji fekk waa joo xam ne fu mu ne nag la gën a bon bi nga xamee ne montage am na <laughs> gars yi di monté rek kon nag a cheytaan yajri fi huruq uh, ibnu aadam aadama majra dam yan nañ ci Yàlla musal kon ko kenn mënu ko te te koor nag ca ñetteeli kado ba mooy loolu la lay baareer nga nekk ci biir sadit ba di loxolo foofu la nekk këttit wicc ko mu wàcc ndànk li la booy maye deret nga yaakaar ne sadit yëpp mën a maye deret am na sadit benn sadit rek <laughs> moom moom nga mën dagg sëdd moom nag seytaan sëdd boobu it moom it moom la moom rek la soxla ci doomu aadama li ci des mën na koo jégale kon bon nga déggee ci ne koor dëgg-dëgg ba waajaay wi ñetteel woowu rek lim lay mën a jox mooy ne wa ana ajisi bihi maa koy fay mooy deuxième ba kon innamay innamay waffa as-saabiruun ajrahum bi xayri hisaab kon dalay tax nga gën a góorgóorlu di gën di muñ koor mooy muñ weeru koor mooy weeru muñ te muñ kan mooy genn wàlli ngam yàlla moo tax eh,